maam Góor euh, gannaaw bi ñu nuyoo euh, day ñëw si affaire Abdoulaye Wade gis nañu fan yi rek mu dem Guinée ñu bare naan deal la du deal mais du mu ñëwee dafa mel na dafa dal dafa mel na tey jii am na lu ko lu ko lu ko lu ko motiver ba mu def rek li nga xam moom mooy dolli ndox si pot de vin maanaam dal euh, ban gis-gis wala ban jàngat nga si am. waaw jàngat bi ma ci mën a am moom mooy dama koy benn rafetlu. parce que tey jii boo xoolee Sénégal dëkk yi ko wër ay Guinée la Gambie Mauritanie c'est des voisins te tey jii mun nañ ni euh, tey bu fi tàkkee mun na law laal leen parce que boo xoolee la plupart des Guinéens fi la ñu nekk di fi daane seen doole te chaque fois dama ko daan wax ci sama ay communication fii gisoo fi benn Guinéen bu chemin Guinéen yëpp ñu ngi liggéey dafa am nag ay nit yoo xam ne des fois dañuy xeeb ay liggéey dañuy xeep ay métier te y' de sot métier donc mooy profité ci occasion bi di di di di di di encourager di féliciter le président Condé parce que lu mu def man dama ko rafetlu euh, tamit di ñaanal Ablaye Wade parce que tamit jàmbaar la ah noo ko mun a waxee moom mooy tey jii munoon na Alpha Condé woo ko mu ne du dem mais dafa dem wuy ji ko visite officielle ñu recevoir ko waxtaan ak moom la ñu waxtaanee nag moom ak ñooñu moom ak yàlla ñoo ko xam. mais tey jii li ma koy rafetloo mooy bi mu wàccee Sénégal waxul ni dinaa wax ak kii te tey jii euh, Ablaye at tey jii bu doon jàppalee dëggantaan man pour man jàppale Macky Sall moo gën a jub moo gën a rafet ci moom parce que Macky Sall dama koy encore une fois kenn mësu ko dégg mu wax Ablaye at lu ñaaw même tey jii su fekkee ni tey affaire nation la parce que tey jii boo xoolee 2012 bi nguur gi daanu man mii dama doon jàppale Karim Wade ci mu génn kaso mais boo xoolee dafa nekkoon demande nationale Sénégal yëpp ñoo doon wax ni Karim Wade il faut ñu woo ko te tey jii bu ko deful woon wor Sénégalais bi mu ko wooyee am na ay Sénégalais yu ci mer ci woowin bi mm-hmm. voilà donc yàlla dogal na Karim moom jox na ko grâce mu génn dem boobu ba léegi ay jàppal bàyyi fi am mais boo xoolee tey la plupart am na ay karimistes yoo xam ne tey jii ñu ngi dem ci Macky di ko jàppale ji te encore une fois ni ma ko mën a waxee mooy Ablaye tey jii mu jàppale Macky Sall moo gën a yomb. parce que tey jii imaginel beneen président bu ñëwoon fii Sénégal ñëw rek gracier Karim Wade mais Karim Wade législative yi njëkk a dem ci la lay daaneel bu ñu demee boo demee élection présidentielle la lay daaneel. mais parce que parce que mhm. parce que da naan mhm. euh, da nga naan euh, bu la neexee nga ni man Karim Wade du man maa ko tëj kaso bi ma ñëwee dafa am ku fi nekkoon kookoo ko jàpp te tamit idi du nit koo xam ni. nit ku nit war wóolu la parce que chaque fois dafay wane ci ay doxalinam ci ay jëfinam loo xam ni xam nga euh, inspiré wul kenn confiance donc nag je préfère que man ci sama gis-gis Abdoulaye jàppale euh, Macky Sall que jàppale beneen candidat